yéen kay yi sol nañu seeni maillot takk seeni godas dëgg bal bi di ko passante coupe d'Afrique Égypte Sénégal dem na final Sud Quotidien moo ko bind Tunisie la doon dajel démb ci demi-finale yi gagné ko benn bal ci dara ginnaaw prolongation yi libération xëy di ñu ko làkk ci anglais yes weekend Le Quotidien nañu li woon démb ñaar ñoo ko waral benn moo di yàlla sunu borom ñaareel ba moo di var loolee tax journal bi bind ci xët mu njëkk allahu akbar réew mi Quotidien nañu max bu démb bi max bu neexoon ndam lu rëy un match fou une soleil national ne ko héroïque magam historique jàlloo rek ndam lu rëy la Aliou Cissé ak i gayndeem wane démb ci terrain bi moom Aliou Cissé ak i goneem anki dina kay génération magique la leen xëy tuddee direct info nañu CAN 2019 kawoon na Tunisie démbu dem final la Sénégal nañu ndax yàlla ñu final waat record yéen nañu ñoo nga ca Sénégal dafay finalu ci CAN bi mook Algérie lay doon ñoo cay daje final CAN 2019 Sénégal Algérie bi mi ngi ñuy fàttali ne ajuma ji di ñëw ci lay doon bu sept heures ci ngoon jotee te ko teree neex lions yi seen benn tànk ma nga buntu àjjana ni ñu yoxosoo waa Tunisie démb ba maf ñaandu leen toj seen kër sur soit barracage la ko tudde journal bi boolee ko ki kàddu yu mu nangoo ci entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé muy xam le ne 2002 penalty bi mu raté woon ci série penalty yi loolee moo ko poussé moo ko xirtal ba tax muy entraîneur équipe nationale bu Sénégal mu ne diggee woon na trophée maanaam ab coupe ngir fay loolee 2015 gi mu jëlee équipe bi la diggee woon ñaar yooyee ban ak ban la woon na ne dana yóbbu équipe bi coupe du monde digge woon na it ne dina leen yóbbu finale coupe d'Afrique Vox Populi nañu 2002 ci la ñu gëj a finalu fukkeet ak juróom-ñaar boobu ak léegi xanaa gile yoon nag danañ yëkkati coupe bi suur suwaa nañu bu ñu naagu nañu gën a defarwaat gën a waat gën a xoolaat suñ bopp ne ci maxub démb bi gis nañu fa ay gaynde tigi waaye max bi tolloon na foo xam ne it ay gayndey pakuti yi ñu doon gis ci terrain bi laatir bi nañu finalu ajuma bi la moo di Kalidou Koulibaly mi ñuy woowe ministre de la défense du carton jaune yu mu dajale record yéen kaay nañu mbir moomet fédération Sénégal bu football ñoo ngi koy lijjanti kilifa yu fédération bi mu di ñoom Augustin Senghor fas nañu yéenee yóbbu ab recours ca CAF ngir ñu lijjanti suspension bu Kalidou Koulibaly bi Alain Sires entraîneur équipe nationale bu tennis mi ngi ñuy wax ci enquête yéen kaay ne Sénégal ak ku mu mën di dajal final na koy gagné El Hadji Ousseynou Diouf ne ko ca wet ga booloo àndandoo dem benn jëli coupe bi rek la ñu wax Le Quotidien nañu final bi nar am gan président Macky Sall nee na dafay dem finalu ji source waa nañu moom jiitu réew mi mbir ñoo nekk ci xelam jamono ji benn moo di dem Égypte fekkee ji final ba ñaareel bi di fexe ba yóbbu ay supporters yu bari ci Égypte ngir ñu dem jàppale ji douzième gaynde ba fa nekk l'observateur nañu bi max bi jeexee démb Ndakaaru jaxoon na lool waaye keer it jaxoon na jaxasoo woon na journaliste senegal yi ak yu Tunisie yi ñoo fa xeex xeex bu rëy footballkatu Tunisie bii te di Wabi Kazri moom ba max ba jeexee dafa daw jubali ci Aliou seen nakub kurpañam ne da ko koy dóor yéenekaay bi nañu ba mu yeggee mbay ñang la fa fekk mbayee ko ba ma mu dellu gannaaw